yàlla dolli ñu ay maqaama yàlla taala barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi waaye bokk yi ni jàkkaarloo waaye bokki yi ni déglu tey ak si ngeen ci barab bi nga xam ni bokk na ci barab bi sëriñ Fallou yi kii nu jàkkaar lool ci toogaay bu jekk bi macha am yar am teggin lool amuk taalibe waaye bëgg bappam waaye bëgg bokkam te nangoo jaamu yàlla soxna maa Awa Mbakke di dem El Hadj Fallum Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul tey jii nag doon àllarba nekk fukki fan ci mois de mars atum 2021 dëppoo ñaar fukki fan ak juróom-benn jàpp ñaar fukki guddi ak juróom yaar dina ñaan gi lu ci fàttaliku jàmbaar alxaaji Mudu Fadal Mbàkke mu ragal ma yàlla mel nañ danaa wax naan man damaay Sénégal waaye tey ji ku na xam ne tey El Hadj mooy Sénégal màggal gi boo génnee ci buntu këram ko màgg ci ngi gis gi tàmbale ci barab bi jàpp barab bu bàyyam bi Sëriñ Tuubaa xam ne barab bi Seex nit ko ju boo sànni mu tag kooku senegal te màggal gi suñu Ibra mi nga xam mooy xalifa bi appelul annoncé wul wootewul néew na kenn ñëw waaye suñ fallu waa réew mi suñ gëm moom la bëgg. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu bu baax fii ci kër bàjjan maam Awa Mbakke moom Serigne Fallilou di soxna maam Awa di caatum Serigne Fallou Mbakke. kër gi nekk fii ci penku jumaa ji di baaxoo dundal màggal gi ni ko njabootuk sëriñ Fallou Mbacké di njabootuk sëriñ Touba gépp di dundale ndax sëriñ Fallou sëriñ Fallou moom ñëpp la soxna si bi mu jotee ndigal ci ki jëli woon ndigal di kilifaam di sëriñ Abul Baraka Mbacké soxna si di ko ñaanal bu baax mu gën fee yàgg te wér ak njaboot gi yëpp ñu bokk fi yàgg te wér euh, ci kàddoom soxna si bi mu jotee ndigal ni nu santaane màggal gi rek noonu yi la ko daal di defee ndax xam ngeen na gën si daaw euh, xawoon naa mel nii tuuti waaye mel na ni ak copp ko am na ku ku ñëwoon daaw ñëw ren xam ne ak coppi ko am na waaye it ku daa ñëw at mu jot ca yeweesu ak ci yii ne xam ni fii jamono ji toll tolluwaay bi e, soxna si mi ngi sàmmoonte ak àqi jamono ji ak yelleefam ba tax na màggal gi nuñ ko daa defee ci njàngum alquran mi dafa dolli lool dafa dolli waaw coppik doxalin nag bu amee moo di mbooloo mi daan bàyyi ko fu bari di ko fekk si fii di ànd ak moom bés bi ña nga xam ni ñoom ñoo féete woo waañ wi ak ak ak ñenn ci jëwrin yi ak ñenn ci jëwrin yi ñoom la ñoom la soxna si wax ni euh, nañu ñëw rek nañu nañu ñëw rek ñu euh, euh, dundal bis bi euh, su ko defee ñi nga xam ni ñoom itam amuñu ndigalu ñu mën a ñëw comme nañ ko daan defee nañu xam ne fu ñu nekk rek an an nañ kook ñoom an nañ kook ñun ndigal rek lay wéy noonu lañ ko xamee woon démb ba sëriñ Modou Moustapha Fallilou waxee ci moom wax ju am solo jooje mu waxoon ci moom Cheikh Mawlène Bara Mbacké Fadilou ñëw itam moom itam feddale ko kon xam ngeen ni ci ndigal rek la tënku nii ngeen ko waxee alaaj góora alaaj góora Ndiaye nii nga ko waxee ak euh, Cheikh Souhaïbou Samb Daaru Salaam nii nga ko waxee ak sëñ Abdou Khoudous Samb Daaru Mooti nii nga ko leeralewaat ci wàllu bokk da ngeen xam ni kenn ëppaliwu ko ci réew mi moom soxna maam aw mii laay wax kenn ëppaliwu ko ci réew mi ci fànn boo mën a jël nag ci fànn buñ mën a jël ci fi ko yàlla boole te mu doon fu ñëpp bëgg a bokk muy fu baax ci fànni réew mépp macha allah euh, loolu nag leeral yi ci ñëpp seen seen bu doon indi ak sëñ Sohaybu ak sëñ góora doy na sëkk le liñ ci liñ ci liñ ciy dolli euh, moo di ñu xam ni moo di ñu xam ni moo di moo di ñu xam ne li ko li ko li ko li ko sëriñ Fallou Mbacke fàggul li ko sëriñ Fallou Mbacke fàggul <laughs> eh, eh, li ko li ko sëriñ Fallou Mbacke fàggul eh, da ko da ko da ko da ko fonk lool da ko fonk lool ba saa su ne mi ngi sàmmonteeg moom sëriñ Amsatou Mbacke mi nga xam ne mooy borom kër gi te jamono ju nekk mu di ko wan ni maa ngi sa kanam maa ngi sa ginnaaw maa ngi sa wet yëpp fii lanu bokk te yendu moo ngi noonu tànkam yaa ngi noonu te fas na yéene incha allah ci guddi gi dina dellu si waat kon moom macha allah mooy mooy mooy lépp kër gi noonu la fonkee bés bi ndax way juróom bu baax wi di sëriñam di léppam sëriñ Fallou Mbacke ak cër mu fi am waaw euh, sañ am di délégué njabootam macha allah waa këram kenn du des soxna maami mii ngeen seen 24 euh, ak maami mii ngeen ngeen ngeen gis mu toog ci wetu soxna si doonuk der macha allah nooy nepp fa tabarakallah waaye tooy na mbax na am ak taalibe nangu lool fuñ ko jëmee neex na ko maa ci mat seere maa ngi fi nekkoon ñëpp nga xam ne ah, ah, jamono bi ñu àggee ci bëccëg xéwli bëccëg yi yëpp moo moo lal napp yi mook ñoom soxna Maama mu sëñ Mbàkke Njóoba ak njaboot gi fi ne ñoom soxna Baali ñoom ñëpp boo fi ñëwoon tey doo xàmmee sëñ diw doo xàmmee soxna diw ndax jëmmum ju màgg ju tedd ji nga xam ne macha allah xam nañu ne sëñ Fall rek lay dund damay wax ni loolu mooy lu baax mm-hmm. yàgg na yàlla mm-hmm. ku xam ni lu baax ma ngi ci loxo yàlla mm-hmm. am na ci ñu ñu ñu mu wàcc ci kaw suuf eh, eh, yónni leen ñu jotli ko ñooñee ku leen xam da nga leen jege moo tax soxna soxna Maami Fall mi eh, lii mu def macha allah da ko xeeñtoo ci tànk yi ñi mu bokk si ñam si ñëpp ndax ci kanam tuuti rek incha allah njaboot si ñam si ñëpp kenn des Mm-hmm. ñoom ñëpp ñi ñi soxna maa bokk sax si sa ñëpp ñoom ñëpp xam nañ leen te incha ñu ñëpp ci kanam da ñu ñëw te seenu njaboot seen doom yi mm-hmm. ñëpp kenn ku ci ne sab taaw say rakk ñoom ñëpp ñu ngi fii ñu ngi ci néegu suñu fàllu bii si néegu suñu boo génnee fii ñu ngi fi waaw kon bis bi euh, ñi daa ñëpp ñëw nañ mm-hmm. ñi daa ñëw ñëpp ñëw nañ boo ko déggee mooy ñu war a ñëw macha allah te am ndigalu ñëw ñoo ngi fii buñ ñooñu nag ñoo yóbbaale ña ña ña ña ne fa ñu ne di ànd ak ñun bis bi kon nag ci teewaayu ñi fi nekk ñëpp ci télévision bi di 24 actu di télévision bu am solo boo xam ne miin nañ ko ci jotaay euh, yoon wi ci jàllale mbirum euh, réew mi ci euh, yu tegg na nag yu am solo soxna saa ngi leen di sant bu baax ci lii ngeen def day wax ni yéen ak télévision yi fi jaar yëpp gis na seen taxawaay kon mi ngi ñaan yàlla yàlla dolli leen ak gën a fés image yu leer macha allah yu jot te tënk lool ci montage yu am solo yu sophistiqué yàlla yàlla taxaw leen ci lépp 24 rek daal macha allah soxna saa ngi leen di sant bu baax kon euh, kàddu yooyu mooy kàddu yi nga xam ni baaxoo nañ ko yotli fii ci kër Badiane Mawa ci euh, ndigalam mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu